jógee naa fa effectivement après may fan yii كيف حيونك حيونك كيف حالك أهلا إله إلا الله cheikh bi nee na gannaaw bi ñu sant yàlla nee na des di ko sant ne di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne mu ngi nuyu way juróom yii mu fi fekk mu ngi nuyu sunu sëriñ bii ñu fi fekk maa ngi nuyu sunu soppe bii fi fekk ne di nuyu waale njaboot gi yëpp nag di ko teg nag ci sa loxo kaddu yi nag du gudd ndax dañuy jéggalu sax ci temps bi ñi temps bi nga xam ne ñu ngi koy jël ci sa jëmm ji waaye moom yàlla moo def mu am cofeel gu ci sa jëmm boobu sax toogagoo nag ci xilaafa gi ne mu di ko suuxat nag saa su ne ne sa doom ju tedd ji muy sëriñ Hamidoune xam na ci dara ne bi ñu nekkee Nigéria moom mooy yombaloon ba ngeen am jotaay yéen ñaar ne li ko gënoon a marqué ci jotaay bi ne hôtel ba ngeen nekkoon nga dal fa ne euh, directeur hôtel bi ne daf ko wax benn bis. ni ko sëriñu Sénégal bii di fi ñëw. nit ku mag ñëw na fi ba tey ci réew mi. nee nit ku mag ñëw na fi ba tey ci réew mi. waaye ni hôtel bi amee affluence. nee na ni hôtel bi amee affluence. dugg bi ak génn bi. nee dugg bee génn bi. ak kilifa yi fay ñëw ci jamono jooju. ak kilifa yi nga xam ne ñu nga fay ñëw ci jamono jooju. nee Nigérien amu ko. nee Nigérien amu ko. musa ñëw aussi ci réew ma amu ko. beneen ku mag itam ku fa musa ñëw ci boobu réew amu ko. wax na ko. nee ma est-ce que ci Afrique bi ñu nekk. nee nee nee na ko est-ce que ci Afrique bii ñu nekk. ci makkaan yu mel nii. ci makkaan yu mel nii. est-ce que sax am na lu mel nii luy xew feneen su moom. nee mu laaj ni est-ce que lu mel nii mi ngi xew feneen ci ñëw gi nga xam ni ñëw nga foofu. moo tax moo tax. mu nekk sag bu mu nekk sax bu rëy. ci képp kuy xam ni ab sénégalais nga ne sa taxawaay ak sa bañ injustice nee na ak sa bañ injustice ak ni nga bootee ak ni nga bootee képp kuy sénégalais ne yemale lu ñun ñëpp loolu moo indi suñu dugg fii yomb loolu moo indi keneen. dugg keneen. ak fa mu bokk. ak na mu fa bokkee. yomb ci yow. ne yomb nag ci yow. ndax cër bi nga taxawee. da nga ñu téye rek. ne da noo téye. sans calcul. ne sans calcul. ndax yàlla rek. ndax yàlla. yàlla. yàlla. su taxee nga téye ay jàmmam. ne su taxee nag nga téye ay jàmmam. nii rek ngay doxalee. ne nii rek ngay doxalee. mooy doxalin bii ngay doxalee. ne du yàggal kàddu gi. dama ñëwoon yeesal. doom bi ma doon ci yow. ne daa ñëw yeesal nag doom gi nga xam ni doon na ko ci yow. di la ñaan di la ñaan. saa su ne saa nga wéy nga wéy. di ñaanal jàmm. di ñaanal jàmm. ci sunu réew bi réew mi soxla na ko. dafa am benn kilifa gu ne dafa am benn kilifa gu mag. nee na ma àll. nee ko àll. buy tàkk. suy tàkk wala mu nekk ci yoonu tàkk wala mu nekk ci yoonu tàkk waru fa ji ne kenn waru fa ji moo tax ñu moo tax ñu ñaan la nga wéy nag di ñaanal réew mi di daaneel kaddu gi di daaneel kaddu gi te di di la ndokkeel ci bis bu tedd bii ñu jëm waay waay nag ci bis bu tedd bii ñu jëm muy juddu yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam muy juddug sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di la ci yaakaar nga ñaanal ñu yàlla waay waay waay waay sëriñ bi ne di la ci yaakaar nga ñaanal ko yàlla mu mucc nga ñaanal ñu yàlla waaye nga ñaanal ñu yàlla itam ne mu yokk suñu cofeel ne ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne loolu rek la lay ñaan ne su toogee ak yow ne yëg-yëgam yëpp dafay yëg ni nga mel ci moom ak connexion bi nga am ak rasulillah waay waay ñun njaw ni sunu toog ak yow nga nangul nu nag doon sunu bay ne bis yu mel nii suñ ci tabbi ak mbégte mi nekk ci yow dañu lay ñaan nga yóbbaale yokk ne suñu cofeel ne ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waay waay ne papa ñu ngi lay jégglu waay waay bu wér a wér a wér ci kaddu yi mu yëkkati di la sant bu baax di ñaan yàlla nga yàgg fi mu ànd ak wér moom sax moo du wax ne yal na yàlla mottali sa naal yëpp. nee yal na yàlla mottali sa naal yëpp. naal yi sax mat na. nee naal yi sax mat na. képp ku nekk ci réew mi. képp ku ne ci réew mu ngi lay sant. mu ngi lay sant ci sa taxawaay. képp ku nekk ci réew mi. képp ku ne ci réew mi. mi ngi rafetlu mi ngi rafetlu. sénégalais yi téye ko tamit téye ko tam africain yi nee nee wax na benn bis benn nit mu ni ko ñun de suñu réew suñu muusoon tuuti. waay waay mënu ko ñun suñu réew suñu muusoon tuuti. dañu waroon développé. dañu waroon a développé. le tourisme religieux. le tourisme nag religieux. ñu fexe ñu fexe. ba am benn compagnie aérienne. ne ba am benn compagnie aérienne. boo xam ne ajjuma bu jot. boo xam ne ajjuma bu jot. dana mën a lié Medina Baye ak dëkk yi nga xamante ni ak dëkk yi nga xamante ni taalibe Baye yi dañu faa bari ne lool su jàllee ne suñu fexe woon ba organiser benn grand congrès international pour la paix ne dippee ko Cheikh al Islam ne dana suqali réew mi ñu ne ndax ñey ñëw ñi ci ëpp. boroomi koom lañu. boroomi koom lañu. te suñu la dégloo. te suñu la dégloo. ngay ni ngay ni ngay waxee. ne ni ni ngay waxee ci réew mi. lu ñu am yëpp. ne li ñu am lépp. daan ko indi daan ko indi fii. maanaam mu mel ni gàncax. mu mel ni gàncax. bu ji bu ñuy ji. su saxee. ne su saxee. dana doon dana doon. naataange. naataange ci réew mi. fépp ci réew mi fépp nag ci réew mi. sant naa la bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.